jëre ngeen jëf mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax daal leen ak jàmm euh, ñu daal leen di nuy bu baax a baax nuyoo leen nag xibaar bi nga xamante ne rek moom moo di aw combat royal bi nga xamante ni moom lañ doon xaar ci réew mu askanu sunu gaal gile euh, combat nag dox ci diggante ki nga xamante ni moo di Modou Xarañ Lo ku ne xam ne ni moom mooy roi des arènes ak ki xamante ne moom moo di Siteu ñoom ñaar nag seen janoo bu njëkk di ab face à bu ñu fas yéenee amal. war a am nag nit le 5 juillet ca fa nga xamante ni moom mooy euh, place du souvenir. mbokk yi beneen combat boo xamante ni réewum askanu sunu gaal am nañ ko di xeex ak moom te doon xeex ak moom ba mu jóg ci réewum askanu sunu gaal di coronavirus gi euh, ñi ngi ñuy euh, xamal nag ni euh, ginnaaw aj màkk gi nga xamante ni rek ujaaj yi dem nañ fa ba daal di ñibbisi ci réewum askanu sunu gaal bi ñu yëgsee daf ci am ñu baree bari ñoo xamante ni rek bi ñu leen testé loolee di coronavirus dafa nekk ci ñoom mu nekk loo xamante ni nag wax dëgg yàlla réew mii yëpp ñu ngi ciy waxtaan ak itam eh, di jéem rek di xool ndax eh, lu vérifié la lu am la wala lu amul lu ci am ba des daal dina ñëw ak yéen ci eh, xibaar yi ci ak yaatal gu yaatoo yaatu mbokk yi leneen li nga xamante ne rek moom la ñu nemmeeku xëyandoo ko ñun ñëpp rek ci réewum askan sunu gaal ba mu daj këpp rek ñu waxtaane ko di lu jëm ci wàllum wàññi tekk dund gi ci réewum askan sunu gaal nag am ci ñoo xamante ni nag xaw naa am tuuti ay rëq-rëq ak ay jafe-jafe seen biir di ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllum farine ñoom ma ñi yi nga xamante ne nag ñoom ñoo koy defar nag ñoom nee ñu dañuy taxaw rek euh, te si ni nga xamante ne mooy di seen ay yoxo lànk ni du ñu tàllal seen tànk mbaanu bànk ko du ñu fassante xànc ak morom ma ci lu jëm ci wàllum rek defar li nga xamante ni moom moo di farine bu ñu mel ndax kat ñoom nee ñu du ñu liggéey benn yoon di def li nga xamante ne rek moom moo di perte mbokk yi lii dinañ ko waxtaanee ak yeneen mbir yoo xamante ni mbir yu doy waar la euh, ci seen émission bi euh, nga xamante ne mu ngi wóor ci turu li xew ci réewum askanu sunu gaal Abakaraan maa ngi lay nuyu. Alaaji Fall Damel maa ngi lay fay bu baax a baax nuyu képp ku nga xamante ni fépp waay nekk ci réew mi rek. dañuy ànd ak ñun ci li nga xamante ne moom moo di lu xew Sénégal Fall Deme. ginnaaw li ñu waxtaanee muy li nga xamante ni moo di wàññi dund gi ci réew mi mburu mi gis nga rek euh, ñi yëngatu ci wàllum farine li ñu àddu xamle ko mu nekk mbir moo xamante ni tamit euh, réew askan Sénégal ñëpp a koy waxtaanee ndax mi euh, wàññi li nga xamante ni moo di kilo mburu bi nga xamante ni ci ñeen fukki dërëm la nekkoon yóbbu ko wàññi ko bu baax a baax a baax dafa nekk loo xamante ni lu réew mi soxla la kon nag faaw rek mu nekk loo xamante ni tamit ñëpp dañ cee war a ànd maase booloo rek doon ci benn ndax kenn mënul wax mburu abu te doo wax farine te ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum farine bi euh, dégg nga rek kàddu yi nga xamante ne moom lañ ci wax. Euh, Fall comme ni nga ko waxee rek ku ne xam na ne jamono bii nguuru Sénégal dafa taxaw témb nag ngir xeex euh, ba lii di dund gi mën a wàññeeku ci biir réew mi loolu nag dafa am ñu nga xamante ni ñoom la concerné ci ay commercant ay gëndkat waaye itam yenn saa tamit commerçant yi dañoo xaw a xaajalikoo ñenn ñi dañuy jaay ceeb diwlin waaye itam am na itam ñoo xamante ne daal ñoom farine bi. lu ci gën a bëri ci ñoom lay jógee mm. lool sax moo waral am na am na ko nga xamante ni sax moom itam euh, waxtaan na ak ñun ñëwaat bu baax a baax ci ñoom jamono bii wàññi googu ñu wàññi ana la la leen nar a andil comme inconvénient ñu daal di ko teewlu. saako bu nekk nga perte si par exemple 7000 francs que boo jëlee boo waroon jaay 175 jaay 150 li may différence bi par rapport 280 baguettes le sac ça fait 11500 booy perte par sac. mooy perte par sac sèche léegi as supposé nga def cinq sac du ñaata du cinquante cinq mille waaw lu kan ma ko mun kan ma ko mun dékku il faut réfléchir ça est-ce que bu nga yoree yaa ngi ko jëndee deux mille cinq cent bu wàññi vingt cinq francs ma ñëwee ne nañu dañu grève waaw li ñuy def nag ak suñu stock bi boobu moom après moom stock bu ñu fi yore am na vingt cinq sac bu ñu fi si biir ñu dugal léegi boo ko calculé perte koy dékku amee technicien war nañ xam lu xew yokk mburu le pain homologué moom mooy mooy mooy xëy rek yokk mburu bi wala xëy wàññi mburu bi tey mooy commission meunier yi toog boulanger yi toog ñëpp toog ñu ma ko farine temps ba mu jeex takk ñu ne mburu bi li la jaroo gramme ñu multiplié par le nombre de grammes mooy prix mooy mooy mooy mooy prix mburu mais xëy suba teel rek ne mburu yi lay jar imposé ko nit ñi dañu koy imposé mais état rek xeex ak moom. dañ koy imposé tamit jëfe ngeen ko. ah léegi nag stock bu fi nekk bu jeexee ñu arrêté. arrêté donc ah looy liggéey. maanaam da ngeen dem en grève. te am non balaa ngay grève ne am looy liggéey farine am nañu stock bu farine bi jeexee ma ñuy grève nañu foo gisee mburu mais c'est ça. le problème il faut régler en amont ngeen toog y a une commission technique buy siéger chaque fois avant avant avant lii di am ñu toog waxtaan bu juboo si kaddu loolu moo sa loolu moo am depuis maa ma ma booy boobu moom du ma fekkee depuis maa ma ba jot loolu moo sa am mais lii moom c'est c'est une première. ñëw tu investis 30 millions. kii xamul investissement xam fonctionnaire xamul investissement amul benn risque fonctionnaire day weer bi day ñu fay ko ki jël risque. jël ay xaalisam alalam ubbi ubbi ubbi as ubbi ubbi business am kenn ko patriotique waaw léegi nag boo boo ko boo ko bëggee boo ko bëggee faagaagal dina wàññi personnel bi deux dina wàññi pour kii de production bi ah sinon il va périr waaw léegi boo wàññi sa personnel wàññi sa production. à l'état national xam nga léegi donc léegi ñëpp ñu wàññi seen seen production mu ñëwee dañu wàññi seen production production àndul ak àndul àndul ak ak ak main d'œuvre day am waaw mu mel ni ñoo ko déggandoo mu nekk daal mbir moo xam te ne dafa nekk moom goo daal euh, mënuñu koo faj léegi léegi mu wér léegi léegi. Mm-hmm. Ah, góom la bopp mënuñu ko faj léegi léegi mu wër léegi léegi ndax nee na ñoom stock bi nga xamante ne moom la ñu am dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko liggéey ah, def ko mburu ak yi nga xamante ni moom lay fëriñ bi di war a mën a liggéey yëpp comme boulanger yi euh, lépp li nga xamante rek soxla nañ ko ñoom dinañ ko ci def waaye bu jeexee dañuy dañuy taxaw ndax meunier yi nga xamante ne ñoom ñooy defar farine bi ñoom ci seen jëm bopp ñoom neeñu ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy taxaw dañuy taxaw donte nag wàññi gi appliqué nañ ko ndax euh, euh, lu tollook ay mille volontaires ñoo xamante ni ay jeunes lañ di ay ndaw tollu ci junni ñoo xamante ni rek ñoom ñoo ànd ak takk der yi ngir saytu xool li nga xamante ni moom moo di bitig bi bitig yi ak marché yi ndax amal nañ la jëmmal nañ li nga xamante ni moo di wàññi teg yi waaye dafa mel ni wàññi teg yi jëmmal nañ ko. mais Fall xam nga man euh, la ma ma jaaxal. Mm. moo di ñoom dañoo jiital. Mm. maanaam jël dogal avant ñuy waxtaan. xam nga boo diggee kii li mu wax sànq nee na ñoom maanaam ay businessman lañ dañuy liggéey xam nañ lu ki nekk lu mu leen di war a jural. mais xam nga wéeréer ji maanaam ab fonctionnaire buy fayee ko wéeréer kooku garaawul. Mhm. mais tey jii man mi jël samay millions investir ko ci wàllum jaay mburu war a jënd farine war a jënd yi ci ànd. war a jël ay nit yu may liggéeyal état xëy na kat daf koy wàññi ndax dégg nga itam maanaam inconvénient bi nga xamante ni moom moo nar a am tey jii dana leen tey jii après kon dina am ñu nga xamante ni dañuy perdre seen liggéey ndax tey jii bu ñu nee ba nga xam tey jii ñoom li ñaan am amatuñ ko il faut ñu wàññi seen maanaam seen effectif seen nombre d'employés dañ dañ ko wàññi beneen itam moo di est-ce que état jël na temps am pour maanaam xool def étude xool mburu mi farine fan lay jugee bu jaaree fii lii lay jar mais nag waru ñoo jékki-jékki rek état am pression naan kat wàññi leen wàññi leen kat di lor. waaw waaw mais est nekkul ni tamit aan euh, euh, euh, li le fait que mu yëkkati lu tollook cinquante trois milliards je pense bien que loolu la dugal ko ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàll woowu est-ce que nekkul ni def na analyse yi xool bu baax a baax a baax soo a wàññi mais xam nga itam Fall boo wàññi da ngay dem ci les concernés mhm. mais pour jékki-jékki def de manière waxtaan ak benn entrepreneur wala waxtaan ak benn businessman ne kat léegi kat mburu mi boo ko wàññee nangam ak nangam déedéet il faut nga nga xool ña nga xamante ni mhm. ñoom ñoo nekk sur le terrain mhm. ñi nekk ci boulangerie yi di jënd farine xam li ñu koy jëndee xam li ñu ciy feree ak itam mburu ana lan moo tax ñu war koo jaay cent soixante quinze ba deux cent francs après nag nga leen est ce que tey jii maanaam ñun état bu seen stock bi jeexee bu ñu defee nangam ak nangam di ngeen mën a wàññi mais tey jii kii wax nii xam nga tey jii maanaam ñoom seen seen seen stock bi ñu jëndoon jeexagul. Mm-hmm. automatiquement état bëgg leen wàññi loo kon donc dina am perte bu nga xamante ni def ci am. Mm-hmm. kon itam souvent da di baax itam nguur buy jël dogal mu xool bu baax a baax ana ñan ñoo dese ñu xaar ba ñooñu kat ñu xam ni kat instant bi commerçant yëpp lañ jëndoon ci stock jeex na ñu amaat nag maanaam beneen élan pour mën a wàññi noo mais bu dee tey jii man dama jënd par exemple juróomi téeméer nga bëgg maa jaay loo ñetti téeméer itam faal dama ci am perte. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Euh, am perte bu fekkente ni rek euh, da nga la jëndee li nga xamante ni moom moo di mhm. ñeenti téeméer nga bëgg a jaay ñetti téeméer day metti mhm. euh, loolu lu am solo la loo xamante ni rek ñu ngi koy waxtaanee ci réew mi askan sunu gaal leneen li nga xamante ni tamit an yëngal na réew mi di li nga xamante ni moo di coronavirus bi nga xamante ni rek wax nañ ko ñu ni nag ñenn ci ay ujaat ba ñëwee. dañ koo daal di indaale rek li nga xamante ne moo di sëriñ te googu la sëriñ nag aan kenn yittewoo ko ci réew ma askan sunu gaal wax dëgg aw yiw lañ soxlaa ki ñaan waaye ay corona ak ay danduma sori ak bëgg a sëqat doo mën a xam nga ndeysaan sama xel dafa dem ci maanaam eh, kii daan am pour naan le ministère de la santé a effectué 500 tests sur 500 tests xaw ma. Ah, fàttali ko ñu waaw ñoom Diouf Sarr ak ñooñu. gis nga coronavirus Fall man li ma gëm moo di mm. mosu fee jugee. corona. corona mosu fee jóge ci réew mi mosu fee jóge xam nga tey jii koo gis bu dee maanaam si ñuy wax nii am na ci corona koo gis mu ngi sëkkat koo gis mu ngi jàmbat ay wet yuy metti ah koo gis mu ngi jàmbat bopp buy metti yaa ngi gis kon nag corona yàgg na fi mais dafa am lu lu am muy màkka comme neneen ce sont des pèlerins yi nga xam te dañoo demoon aji màkk ñëwaat àndaale feebar mais Fall màkk ku fa jógee da nga da feebar màkka coono nga fa nekk ku fa jógee il faut que nga feebar xam nga la moo tax tey jii boo jógee woon par exemple Sénégal nga dem Gabon mbaa France yow miino air boobu fu nekk foofu il faut que nga yëg dara sa yaram léegi nag Sénégalais yu mën a yokk rek ñooy naan day feebar mais ñun dégg nañ kii di docteur Ablaye so xam naa ni sax ñun ñëpp gis nañ li nga xam te ne wax na ko nee na gisoo démb la nga xam te ne def na ko nee na retour de la Covid 19 au Sénégal nee na évitons de créer une crise qui n'existe pas. kon donc dafa am ñu nga xamante ne instant bi nekk di créer crise boo nga xamante ni amul. mais gars yi bari ah. nañ ko tey ci mu ne mu ne encore attention à stigmatisation des pèlerins tey jii lii mën na frustrer sax ña nga xamante ni ay pèlerins lañ tey jii par exemple Aboubacaraan mi jógee Màkka yaakaaroon ni ay nitam dañoo ziar si ko kat ñëpp di ko daw moom après dina am loo xamante ni daf daf koy xaw a métti. ah war na am nag dina xam nga ñun moom mooy suñu traite wax dëgg fa non si mu ngi am am am na ñuy nganale hmm. moom itam ñu ne tamit une situation sanitaire a-t-elle été déc maanaam moo décrété en Arabie Saoudite mu ne chaque année après le Hajj de personnes rentrent comme ni ma ko waxee yenn saa yi bu nit ñi jógee Màkka ñii seen baat day dee yaa ngi dégg par rapport ak poussière bi ngi nooy xam nga Arafa tamit maanaam montagne la bu nga xam te ne amul dara poussière boobu itam bu duggee seen seen biir yaram faaw maanaam mën a changer moo tax nag mu ne kon c'est courant dans ces genres de rassemblement où des million de personnes vive dans la promiscuité yaa ngi dégg mm. kon loolu am na kon il faut que ñoo xam ne que dama am tàngaay bi ak ak ak ni mu demee kon il faut que yooyu am mais nag bu ñu fi nekk nag di di tiital li ngi naan kat Covid 19 mu ngi fi alors que yii feebar la yoo nga xam ne dafa fréquent faal mm. fii ku tukki ñaari fan boo ñëwaatee sa baat changé. nga commencé socc socc moom ñëpp ngi socc ah nga dem màggal ñëw commencé socc yaa ngi dégg nga dem foo muyul dem climat bi mooy changé ci yow kon nag il faut itam ñu bàyyi stigmatisation bi nga xam te ni instant bi ñu ngi koy jéem a dugal wi kon covid 19 am amul mais nag lépp solo tamit moo di nañu moytu ndax socc moom ñëpp lay wàll daf ci am ñoo xam te ñoom dañu am ay maanaam maladies yoo xam te dañ koo am ak ñoom ñii dañoo am lu mel ni asthme ñii dañoo am yeneen feebar yoo xam te tey kat peut ñoom soj laalee mën na yee yeneen feebar yi nga xamante ni moo nekk seen biir jaram mais li ci mënti tam daal nañu bàyyi di créer ay maanaam euh, feebar yi nga xamante ni amul doole par rapport ak ni mu meloon ak 2020 Alaaji Fall Damel waaw mu nekk loo xamante ni comme ñu ngi ko déggee noonu la waaw wax nga dëgg de yenn xew-xew yi boo ci jógee da ngay sol ku ku kuy ngénte donc mm. ñu naan seet baa ngi nii ma ngay sol di sol di fanaanee sol suba ba ngoon jot bu xëyee faaw baat ba dee est de suite en tout cas daal lu ci am ba des daal daal dama sore gi nañ moytu rek te xam ni daal coronavirus segam mm. moom ku ne xam na ni day wàll rek yu ni mel donc nañu nañu nañu nañu moytandiku bu baax a baax a baax laataa ñuy ñëw ci mbiram Souleye euh, Diop. Euh, mm. borom Thiès borom Thiès kaay laataa ñu cee ñëw rek dafa am benn xibaar bu rot di ab benn acteur. Euh, boo xamante ni ca Marodi la ñu ko xamee mu nekk koo xamante ni mu ngi ci turu Dame Ndiaye moom daam Ndiaye nag nekk acteur bi nga xamante ni wax dëgg moom la ñu wax rek nii dafa daal di ñàkk bakkanam ci ginnaaw genn accident goo xamante ni am na rek ca fa nga xamante ni moo di euh, ca croisement Cambérène ci aw motoom euh, moom Dame Ndiaye nag ñu daan ko gis ci yenn série ku ci bu ci mel ni Emprise mu nekkoon ci koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ñu bari xàmmee nañ ko mooy borom lasta yi rek donc moom nag la ñu wax nii rek moom moo wuy ji boromam mu nekk loo xamante ni euh, nit ki tey ci altine bi la daal di faatu ak accident bi nag ca euh, démb ca dimanche ba la amoon donc mu nekk loo xamante ni nag équipe bu Thiès Info yëpp ñu ngi koy ñaanal leneen li ñuy waxtaanee ci réew mi askanu sunu gaal nam dem seeti ki nga xam ni moo di Birame Souleye Diop lan la wax. Fall Birame Souleye Diop waxul waaye dafa waaye dafa jëf ñu gis ah. ndeysaan dañoo waxoon ne bi Korité jàllee askanu Sénégal ñëpp ñoo gisandoo Birame Souleye Diop taxaw publiquement ne kat man Birame Souleye Diop bu ma kenn tuddee làmb bu ma kenn tuddee ay match de football bu ma kenn tuddee ay ngénte n'est-ce pas moo ko waxoon Fall Demel léegi nag maanaam ñu gis ni que kat bi tabaski bi jàllee dañ ko gis ci benn cérémonie bu nga xamante ni daal ay coupe wër koog yooyu. ah te moom ah? moo ah? moo ne woon te moom moo ne woon bu ko ah. kenn tuddee nag sa mu bu ko kenn tuddee ay ay ay football waaw te nag nit moo ko waxoon moom mbiram nit nag ah mais moo ko wax paan loolu ñëpp gis nañ ko loo xam nga loolu ci ko gi woon mais nag dama xamoon nag qu'est-ce qui a changé entre temps diggante Korité ak ak tabaski ba ba ñu gis beneen facette moom lu mu wax ci tabaski ah non tabaski bi waxul mais dañ ko gis mu taxaw ci match bu nga xam te ni ay coupe dafa taxaw mu mel ni comme un parrain mu mu mel ni je mu mel ni comme un parrain même bu dul parrain itam daal takk takk na ci rib waaw mais Fall man nee naa man tey jii man kat bu ma kenn tuddee nangam ak nangam ma xëyaat un bon jour nekkaat ci loolu. Hmm. kon xam nga la euh, conseil Fall nguur gi fi nekk. dañoo ne jub. jubal jubbanti. waaye ak moytu vaar. moytu moytu vaar maa ko ci yokk di nga Fall. jub jubal jubbanti ak moytu vaar. Ah, gis nga nguur gu bees gi li ma leen dénk moo di. comme que nee na ñoom seen slogan moo di jub jubal ak jubanti. waaw bis ni nag man maa ne nañ nañ ci yokk ak moytu vaar. ndax waruñoo gis suñu ay dirigeant di wax benn wax ñuy dem di jàpp ni di wax na lii loolu mooy dëgg nga xëyaat un bon jour ñu jël di la collage sa waxu démb ak sa waxu tey mu nekk lu dëppoo. dëgg la. kon nag Fall il faut itam ñu xam fu ngi teg suñu tànku baax baax dëgg la nag moom fii la waroon commencé gis gis nga li mu def nii Fall mhm. dafa lamboo ak suñu réalité société un ministre mënta nekk fii nekk ministre dëkk ci dëkk te xew-xew du am te kenn du ko ci invité mhm. loolu c'est impossible mhm. depuis temps euh, ñoom Moustapha ñoo ñooñu noonu ba tey jii nii xam nga loolu yàgg na kon nag wax dëgg fa yàlla nos dirigeants là il faut ñu xam ni que il font partie de société là il faut ñuy impliqué wu ci activité yu nga xamante ni mu ngi xew ci biir société bi. Mm-hmm. mais nekk fi naan bu ma kenn tuddee match de football bu ma kenn tuddee làmb nga xëy un bon jour itam ñu wane ay vidéo wala ay nga taxaw ci match de mm-hmm. bu yàggee dootoo am crédibilité ci biir réew mi. dëgg la kon nañ ko moytu bu baax. nañ ko moytandiku Aboubacar kii nag moom li ma lay laaj yow laa koy laaj mooy doomam ji bu juddoo ana kan la koy tuddee ndax fi mu toll nii tam jafe-jafe xàmmee bàyyi ba la am moom mi xamante ni benn jeune fille la bu am 19 ans Aminata euh, lan mbiram nu demee. xale bu jigéen bi li ci gën a yéeme moo di sorti la demoon sorti sorti moom ak ay xaritam ci diggante korité bi daal jàll la la demoon sorti mais xam nga ëmb moom il faut nga dem ay un mois deux mois nga soo a xam ne que yow da nga ëmb. dëgg la Fall xale bu jigéen bi moom sorti la demoon ànd ak ay xaritam. mais ndeke sorti boobu Fall moo ko jural lu nga xaman mbuur gi. saligeen saligeen. sol lu baax nag ànd ak ay xaritam xam nga xale yi léegi ndeysaan Fall bu ñu àggee. ki sorti dugg ci piscine bi di di cappax cappaxeeg yooyu yenn saa nit naan la ay kaay ma sang laag yooyu boo solee lu xaw a yaraax yooyu yaa ma gën a xam hmm. lu ne am na ci yenn saa tax hmm? ah? xam nga yenn góor saa yenn saay faal toog <laughs> xam nga faal <laughs> yenn góor yi dem faal saay toog daal boo solee a ah, xam nga rek yaa ma gën a xam faal faal daa xam nga itam yenn saa tamit toog ci piscine bi lànk bañ a génn yëpp da ci am hmm. ci piscine mais faal ndeke moom xale bu jigéen bi mu demee piscine ba génnaat ndeke ndogal dal na ko. man noonu laa bañ a piscine proposé nañ ma ko ba sonn ma lànk. <laughs> ah bul dem de. nee naa ne leen organiser sorteeg lu ne ma lànk. yàlla baax na mais Fall xale bu jigéen bi. Hmm. bi mu jigee sortie boobu daal après quelque temps la yëg ni que moom dafa ëmb. dafa ëmb te bi mu jógee sortie bi la. te moom bi mu jigee sorti la ëmb. waaw léegi li ma lay laaj mooy moom sortie ba mu ngi faa woon ak copain wala. léegi nag maa ngi ñëw. moo tax nag moom mu expliqué maanaam confidence boobu mu ne moom jamono bi li ko jaaxal moo di moom bàyyi doomam lay wër ndax nee na moom waat na ni ne moom mësta cukkum njaay. maanaam mësta seq ak kenn. ak góor. Aana Njaay bi mësu koo joxe. mësul joxe Ablaye Njaay. Ablaye Njaay góor koy am jigéen du am Ablaye. doo dégg ma ne maanaam Aana Njaay googu mësu koo jox Ablaye Njaay. waaw ah, kay boole maanaam Aana ak Ablaye daal. waa baax na bàyyi te nga jàll. man gis naa benn paa bu am doom doom sant Njaay Njaay la jël doom ji ko Aana. kii. yow <laughs> sa xel day ñaaw. sa xel day ñaaw. ñu dem mais Fall. ji nen nee moom sax gaa am na copain waaye nee na moom sax ak copain boobu yëpp wax dëgg fa yàlla nee moom bu tooyee copain daal dina flirter dina def lépp waaye ci copain daal moom mosu koo xalaatee sax. maanaam flirter nañ def nañ. waaw may jotuñoo def action mais jotuñoo def action. ca bis ba ca bis ba dëgg la. mais nee na nag moom li ko jaaxal moo daal ca piscine ba. la ko leer ni daal fa la jëlee ëmb boobu. maanaam piscine ba la ndox ma ko ëmbal ne. ne maanaam xëy na kon daa am kon ku yulleeku rek ci ci ca piscine ba rek ndox ma. waa waa yéen tamit yëg boppam ci piscine bi bàyyi ko noonu nag. xam nga ko xam nga corona da da nga dégg ñu naan cas cas communautaire. moom nag bii moom bii moom bii ëmb communautaire la. xam <laughs> nga <laughs> bu dee ëmb contact moom da xam ne kii kii am moom bosam moom ëmb communautaire la. maanaam dal na ko te xamul fu jëlee. kenn xamul ba tey jii nii moom kan moo ko ëmbal. Mm. mu war nag mu maanaam mu lancé ne moom daal képp ko nga xam ne demoon nga ca sorti ba na nga bàyyi xel daal ëmb nga. amaana tey jii nit mën na faa yullee ko mosoo dem sorti yow piscine boobu demoo fa de. non non non waaw kon daal képp ku demoon sorti mbuur après Korité ca ca piscine te nga xàmmee xale bu jigéen boobu te nga jot fa sa bopp xamal ni daal sa doom ci àll ba. ah waaw piscine ba piscine ba piscine waaw loolu mën naa ne de parce que ndox mi bu bu bu ko nit ki eh, nit ki bu éjaculé bu bu bu yëgee boppam maanaam mu mu bàyyi am ndoxam ci kaw ci piscine bi ndox moom xam nga day flotté ndaw si bu kiiyee ndaw si mën na ndox mi mën na koo dugg. doy na waar lool mën na koo dugg parce que euh, tamit euh, li ñu li ñu li ñu xamle ci ci ndaw si mooy ndaw si ba léegi dafa dese ndawam. moom moom kay ba tey e, élèves na. ndawam ba tey mu ngi ndawam. donc mi ngi puisque mi te moo copain bi bi ñu flirté dem nañ ba bëgg kii après ñu taxaw. daal ni non parce que mosuñu ko def te ko def. walaay donte xawoon na leen a bëgg fil sax ah du noonu. Mm-hmm. léegi nag euh, ndaw si dugg ci piscine bi génn daal jàpp na ne kon ndox mi ko ëmbal ca piscine ba la jóge loolu nag nekk na loo xamante ni daal man daal njaabaa njël la dëgg la xuma njaabaa njël la xuma daataat ah, la moom kay xanaa daataat la kay def la la ba defoo de salaamaaleykum demoon ah, ko wax en tout cas doy na waar demoon sorti. waaw yow <laughs> mm. Ndakaaru. waaw Jal Diop de war nañ faa mën a dem nag. Fall maire bi. Mm-hmm. lu doy waar moo ko dal Fall. maire bi ci boppam. palmeer bi doom bu jigéen. Mm. daal mooy jékki-jékki di dem kenn du xam fu mu jëm. faal doom ji dañ koo naawtal xoolal xale bu jigéen faal nu mu rafetee. xoolal xale bu jigéen faal nu ah. Ah, mais faal moom problème doom ji moo di. doom gi daal day jékki-jékki dem du xam fu mu jëm. moom instant bi sax moom gisul doom ji. wër na ko euh, est ouest nord sud Dakar Colobane Tambacounda amul fu mu yeblewul daal ñu déglu femme bi Fall. ko teewlu waaw. Ah. dem na depuis mercredi. mercredi. waaw dañu yeewu daal gisuñu ko ma toog ba mi di gisuma ko. moo laaj xale yi ñu ne géej nañ koo gis depuis six heures du matin après ci laa woo asu ma ne ko Liis de dafa dem te gisuñu ko war nañu besoonu nag ndax moom musul dem. te waxu ma ne yaay maa ngi dem daf may naan mère jox ma naa cent franc ma dem jëndi café ma jox ko cent franc mu jëndi café du dem fen ci biir kër gi rek bitig bi ma toog ba ay gisuma ko ci laa wax asu ne ko Louis nekkul ci lu ko neex parce que musul dem génn kër gi te waxu ma ne maa ngi génn jëndi café mbaa mayu ma jëndi mburu mu daal di dem moom tamit dem police ñu ne na xaar bi 24 heures pour ñu déclarer ko foofu après ci la ñu benn xale wax ne gis na ko rompoye jàmmalaay mu di ko bañ ko wooy parce que moom boo ko dee wax ak moom te xamula du la tontu ndax wérul dafa xaw a wéradi borom situation woon nag ku baaxoon ci man ku ma bëggoon koo xam ne mënumaa wax ay waxam damay ñaan yàlla rek dal na ko yàlla delloo si ci samay loxo ku génnoon ci man Louis Ndiaye damay ñaan yàlla rek yàlla indil ma ko ndax métti na ci man bu baax a baax a baax a baax te doxuloo xeexul doxul taxawaaluwul yàllaa ko teg natu rek ñu déggoo mu toog ci samay loxo suy dem sax dina ma ne mère damay dem ci bitig bi su dellu muy jël ci biir ci biir kër gi daf may naan mair est-ce que mën na jël nangam ma ne ko waa jëlal mu jël ma ko waxee bàyyil mu bàyyi kon kooku boo xëyee xëy mu réer ak situation bi mu nekkee woon tey métti ci man métti na ci man lool may moom baa ngi bugg a yàgg parce que presque war naa mot fukki at voilà du dem fen fen fen diggante kër gi bitig bi. xanaa mu jéggi tali bi ci ñi mu xam foofu ne leen may leen ma cent franc su ma demee ba gis ne day dem pour ñaan sax ma ne ko kaay mu dellu siwaat ma jox ko cent franc mu dem ci bitig bi jëndi café dellu siwaat ñëw toog jeex na amul benn xarit du dem fen bu dee bu góor di ko naan Louis sax day daw du su la xamul du wax ak yow booy wax moom du la wuyu noonu lay def waaw. ndax koy door moo ngi koy door a dal de. moo koy door a dal waaw. d'accord. fee bu parcelle bu njëkk ba sama doom bi moo ne woon def fay dem waaw dem nañ foofu yëpp déclaré ko ah ñun daal ñoo ko teg ci loxo yi sànq-sànq ne lañ ma ne gis nañ ko ci wetu fii osan euh, bi ma ne nañ jël taxi dem ñu jël taxi wër nañ foofu yëpp bay dem bay ñibbi ci la ma asu woone naa dellusiwaat fii Mm-hmm. nekkul jigéen boo xam ne dafa am ñu daan jàppanteel ci ko daan mm-hmm. Mm-hmm. du wax ak kenn xanaa bu la xamee bi muy nekk nit ñi mu xam dina ñëw ne la du du yoroo cent franc nga may ma loolu rek mooy waxam lu mu soxla ci yow daal ñaan la lu mu soxlawul ci yow booy wax ak moom du la wuyu même ñi nekk ci kër gi sax bu soxlawul ci yow booy wax ak moom du la wuyu day dem rek tëdd heure lekk jot mu ñëw lekk tëddam bu jotee mu dem tëdd barke de bu daal la jóg dëkk xaw ma ban heure la jóg mandax ndax musul yeewu te ñëwul taxaw sama bunt musul yeewu parce que démb rek la ko def waaw. waaye mm. ah, sama na trop wax dëgg yàlla parce lañ nekk. ak képp ku fi mës dugg. waaw xam naa gis nga de jooy sax moom moo tax mère bi. àggalewul la nga xamante ne rek moom la bëgg wax. ndeysaan waaye daal li ci jot a jot ci kàddu leer na nañu faal. nga am sa mm. doom bu jigéen mu nekk mm. dans de bonnes conditions. Mm. ndax dégg nga sax mu ne moom doomam moom ku yàlla dimbali la ku yàlla teraloon la. xëy un bon jour rek ndeysaan addunaam yëpp yàqu faal la mel. waaw doy na waar trop métti na itam lu fa métti di am problème bi mooy à la fin doo xam lan ndax dañ ko koo def. ndax ay rab la parce que am na ci ñoo xam am na yoo xamante ni yooyu rab doon rab ñoo leen koy def loo mhm. rab yi ñoo jékki-jékki rek naawtal leen yóbbu leen am ci yoo xamante ni lu ñu leen di def la am ci yoo xamante ni tamit bon peut-être lu leen leen dal la mhm. psychologiquement donc kenn xamul mais daal dañ koy ñaanal en tout cas de Fall boo déggee même ni mu waxee euh, ndax xam nga faa itam Sénégal dafa nekk société boo xamante ni bëri na nit ñu nga xamante ni ñoo ngi liggéey jékki-jékki tedd nekk naa la mën condition xëy un bon jour mel ni daal dañuy ne maanaam suurloo liggéey boobu noonu hmm. yenn saa ñii nekk ñoo xam ne ñooy mën seen kër ci ay teranga di fa teral seen yaay mu am benn jalousie bu am ci seen diggante kenn seen famille tax loolu lépp dañ faal. mais à la fin waaw soxor xam nga soxor am na da d'accord naa soxor am na mais man jàpp ma ni doomu aadama mun na na moroomu doomu aadama am leen est-ce mhm. comme jàpp nit dem ci sëriñ liggéey genre affaire yooyu noonu. yàgg yàgg day tey day ci sa kaw lay këppwaat comprendre te am na yàlla ay doomu aadama nu mu leen di teralee noo xamante ni nit loo mën a toll mënoo leen def dara est-ce que comprendre mm-hmm. donc li ñuy wax rek mooy maire bi nag gëm moom daa mel ni du musulman ah du musulman du kon du ma mën a wax li ma bëgg a wax sànq mm-hmm. waaye daal moom na na na seet daal na seet muñ muñ def ay recherche xool naka lay def ba gis doomam su fekkee lu ñu ko def la aussi tamit ki ka def ku bon la parce que nit mënul nekk ci ay conditions yu baax di liggéey normal di dem di indi di dem di indi di dem di indi. di tëral yaa xam nga ne kii moom boo xoolee photo rek nga xam ne kii moom ku bëggoon àdduna la ndeysaan. waaw waaw un bon jour ñu ñu def ko nii. bi mu demee sax ba xel mi xaw a kii euh, daawul wax ak kenn lu dul ay may ma saafara ak yooyu jeex na donc nekkul koo xamante ni tamit ku ñàkk fayda la c'est-à-dire comme boo. boo ko boo ko xamul woo ko du la wuyu ndax nee na am na ku ko jot a gis woo ko waaye man ki ko jot a gis kooku laab laabe man du ma la gis ma xam ne say ay mbokk ngi lay wër. dama lay jàpp ma xam ne sa xel neexul ma bàyyi la ngay dem damay man bu ma la ragalee sax damay woo ñu ma la jàppale. nga leen téye leen ko yeew ko. waaw yeew la. ah déet am na leen fàll foo nga yeew leen pour ñu daal. déet yeew loo ci yeew jigéen. ah Fall bu dee ku agressif la yooyu la jàppale diw kaa leen jàppale ma diw mi kat dama koo xam nàngam nàngam woo ay param ñu daw fekk ko fi mu nekk ñu jël ko. wala ay projet ñu ko jege. Mhm. mais gis nit wérut nga nekk nga nekk dëkkandoom xam ne kii weeru te ay mbokk ma ngi koy seet nga ñëw ba ci gën a yeb si ay parents gën a yeb ñee weesu mu ñëw ba ci kër gi naan leen. gis naa di loo ciy wax. doy na waar ba nga ko gisee da ngaa war a def le tour ba topp ko sax même boo ko mënul jàpp nga woote téléphone ni diwkat gis naa xanaa xamoon ni ñu wéradi ñii seen ndox du gaaw. wallaay ndeysaan mën nañoo xëy nekk ci benn koñ di ca tambaambalu di ca tambaambalu ba ngoon jot. wallaay ñu dem beneen koñ. duñ du duñ avancé ñu dem beneen koñ. Mm-hmm. comprendre noonu la ñuy def di def noonu di def noonu di def noonu ba naaw filaan am na ci ñu bari ñoo xamante ni fi ñu toll nii ñu ngi wër seen yaay mënuñoo fexe ba gis ko ndax seen yaay xel ma neexul jekk na jekk génn dem wëril wuñ ko wala wër bi ci war defuñu ko négligence bi da cee bari tamit. Mm-hmm. comprendre. Mm-hmm. boo nekkee ak moom dafa am nooy doxee ak moom. toppatoo bi ci war garde bi xool bi mu jaree sax yeew nga yeew ko tey waxuma ay yeew comme ay jéem déedéet déedéet yi da nga koy téere des dañuy jekk-jekk nemmeeku ko gis ni koo xamante ni ku wéeru la ñu jéng ko ba tànk yi dagg te loolu da ko fi tere da koy tere waaw yeew ko ba buum gi di xeranti ko ci loxo bi bu commencé dagg waxuma loolu xewoon na fi wallaay donc ma loolu loolu tamit bu kenn ni faal da mel nee nañu yeew ñu wéradi waaye ngir bañ mu ngir bañ mu génn wala mu rëcc ah bokk na ci téye ay loxo am na ay piqûre yoo xamante ni boo ko piqûree nit ki dootul mën a dóoree mhm. donc nga pourquoi pas nga piqûre ko piqûre yooyu ba pare di ko tëj mhm. nit ki moom bu demee ba loxo yi munul dara comme mënul la dóor mënul la def dara lu dul wax kese donc jërul jërul nga koy yeew mën mhm. nga ko bàyyi ci kër gi donc di ko surveiller di ko xool waaye boo wëri tey jii euh, Sénégal wala Thiès gii dong ñu nekk wala Dakar wala Kaolack wala feneen ak feneen foo taxaw dof yi dañ ñi ñu wérut maa ngi jégalu sax ci kàddu gi ci turu dof yi ñi seen xel naqar yi ñi ngay dajal day bari mhm. day bari mënoo xëy suba ba ngoon jot gisoo ci kenn te ku ci nekk ci ñoom am nga famille mhm. ah, su fekkee jotoo woon am doom am nga ay parents am nga ay ndijaay am nga ay mag ah su fekkente ni mag nga meer nga am nga ay doom yoo bàyyi wala ay ay ay say doomi say doomi mag wala say doomi rek ah mhm. pourquoi pas jël la en charge tée la fexe ba yow doo rëcc doo dugg ci société bi parce que la plupart tey jii loolu mooy waral nga gis samba boy yi samba sugur gay yi nga xamante ne ay balla puy da lañ wallaay tekkuñu dara ay biteel yu amutub saañ la nga ne ay la lañ balla puy da léegi looy balla puy da mooy biteel bu amutub saañ rek <laughs> maanaam njëriñam ngi mel ni biteel bu amul kubéer ah, yaa ngi dégg nga def ci ndox booy juutal muy këpp du tekki dara mais olof mën a sàccee wax de comprendre mais bolle puy da la ñuy wax bolle puy mooy ku jëriñul dara comme ni waaye waaye nga naan balla puudar olof moom ko de. den ko sàcc Fall daal doy na waar loolu Fall c'est triste en euh, tout cas. boole puudar boole gisoo kan mu ngi toog ci réseau di la xeelu naan la liggéey booy leen. daal hmm. ma ko waxee. kon hmm. loolu loolu définition bi loolu la. doy na dañuy ñëw fekk ñi nga xamante ni wéruñu ñu jéem a yegg seen kaw. ay xale yu ndaw des fois da ngay xale boo xamante ni bu amee vingt ans ca lay yem wéru xel ma neexul muy dem mu leneen kii nii bu guddee bu bu dajeeg mandikat yi mën nañ ko def. Eh, wala ñi nga xamante surtout yooyu. li saa ne naan góos yi gees. waaw fàq maan góos si gees. kon donc il faut ñu veiller ci ñooñu bu baax a baax a baax ku ci am ku wérul nga tee ko sa kër te faj ko wàcc si sa àq comprendre. Mm-hmm. am na ay dalal xel ay faan. dalal jàmm yooyu yëpp ay béréb la yoo xamante ni man nañ fa faj ay nit. Mm-hmm. donc ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën lañ leen faa yóbbu faj leen. Mm-hmm. donc ba tey ñu wéy wax ci leneen doon foog ah, loolu luñ wax doy na sëkk. ñu dem ci macha allah benn xale bu góor boo xamante ni quinze ans la am moom nag dañ koo kidnappé woon kidnapping bi nu mu demee. Fall loolee mu ngi xew ci diwaanu Diourbel. nga xam ni sax foofee mu ngi ci maanaam village bu nga xamante ni daal mu ngi nekk ci commune bu tey ba xale bi mu ngi wëkk ci yaa ngi de gis nga euh, faal xale bi daanaka juróomi sàmmkat ñoo ko jàpp juróomi sàmmkat ñoo ko jàpp daal di koy téye otage. sàmmkat yi lan la ñuy jotee xale bi. waaw juróomi sàmmkat. Mm-hmm. ñoo ko jàpp téye ko otage. waaw ñooñu nag ay sàmmkat du gileem lañu. gileem sàmm. waaw gileem na ñoon sàmm. waaw nag xam nga boo nee sàmmkat a ndeysaan mbokk na sax dañuy kii de ñun lay waxal. Ah, mais mais nag ñii ay sàmmkatu gëlëm lañu faal. ñoom daal faal ñoo téye xale ba ca àll ba ay fani fan xale ba daanaka li ko dalay ndindi ak lu wér noonu biir Touba Jurbel. waaw ah déet mën nañ nekk ay ay pël tamit faal mais daal mais daal ñii daal ay sàmmkatu kii lañ faal mu mu mu gëlëm te moom sax gëlëm yooyee dañ ko sàccoon. waaw te ñoom mu gëlëm yooyu sax dañ dañ dañ ko sàccoon. ñoom ñi sax mu gëlëm. waaw dañ ko sàccoon. kon est-ce que bi da leen doon. léegi Fall ñoom daal ñu gis xale bi rek daal téye xale bi kidnappé ko xale bi wër nañ ko jéej ji eh, joor fu ne wër nañ ko fa. ba daal xale bi yàlla dimbali ko mu daal mu daal di rëcc. bi mu rëccee nag ñëw ci ay waajuram. expliqué leen ci lañ daal di maanaam avisé ña nga xamante ni daal ñoom ñooy brigade eh, bu proximité bu Nindi. ñooñu nag ñoom ñoo dem ba ci bërëb ba nga xamante ni foofu la sàmmkat yooyu nekk ñu ñu daal leen jàpp mais faal gi gis nga bu ñu leen jàppee sàmmkat yi day dañoo jéemoon di riposter askan tamit daal di ñëw topp si leen génn am na ci koo xamante ne faal dañ koo jàpp dañ koo dóor dóor dóor dóor ba loxo bi damm ba liñ ko yóbbee hôpital mm. loxo bi dafa damm ñeneen ñeent itam dañ ñeene téye jamono bi téyewub ndégandiku maanaam placé en en garde à ñoom ñoo doon jéem a ri waaw ñoom ñoo doon riposté gannaaw ba gendarmerie ñëwee mais nag heureusement que xam nga itam dañu naan bu ngeen nekkee ñeent itam du du ngeen xeex ak dëkk gars yi daal fexe nañ leen daal ba jàpp leen kenn ki moom nee dañ koo dóor ba loxo bi dem waaw fii rek lay xewe dañ koo dóor faal am nañ saa yéen image gis nga waa waaw waaw waaw nii la mel xoolal faal gis nga lii xam xam nga ni kii moom maanaam bu jaaree fii ne baay sàcc. ñii kay dootuñu sàcc ba. moom moom daal Fall noonu la mel. waaw waaw moom noonu la mel. ndeysaan dëgg la lépp fii xewee. waaw waaw ñu dañ koy topp ba am image ñëw woon leen. ndeysaan mais Fall gis nga euh, instant bi gars yi ñoom ñoo ngi en garde à vue. mais daal li ki daal moo di ñu ngi doon toj biir jubel ñoom dañuy sàcc denc sàmmi jaay ñëwaat sàcc encore. ci daal lañ lañ gisee xale bi daal ko kidnappé xam naa dañ ko bëggoon def seen jaam rek wala seen booy. waaw boo ko defee muy mu leen di liggéeyal. waaw mu leen di liggéeyal ba ni booy wéracee. waaw mooy mooy mm, mooy mm, moom moom kay euh, nañ ci waxaale sax profité am na ci benn boutique bu ñu doon daaj gars yi xale bu jigéen xale bu góor bu am 13 ans lañ yor. loolu kees la xewee woon mm-hmm. xam nga genre yooyu. xale yi ñuy jël di leen dugal ci. wallaahi euh, ndeysaan ci ci ci ci ci mbir yooyu dañ ko war a baax ndax xale xale nekk na koo xamante ni dañ ko war a bàyyi mu mu mu jël yoonam xool naka lay def ba tekki xool naka xool xool xool xool parce que li mu tàmm li nga ko jàngal moom bu màggee rek day foog ni loolu lu baax la mën na kaa tari donc kon il faut ñu def très très attention ci ci ci comportement yi nga xamante ne moom la ñuy am suñu diggante gone yi. Mhm. ak ni nga xamante ne noonu la ñuy doxalee ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di gone yi. Mhm. ndax xale moomin la. ah. te te moomin dafa am yoo xamante ni waroo ko séq ak moom. ah heureusement ba ñoom ci jàpp rek la ñem bu doon ay saay-saay yu bona bona bon mën nañ ko fay jéem a tëddee wala ñu koy def naka su dul noonu te am nga faal def ko di ñaawte fi itam fa ñi nga mooy euh, sàcc bu daal di dóor ba mu daal di génn àddina mm-hmm. fa ñu bëggoon maanaam mu cambriolé benn service transfert d'argent bu xam moo gën a rëy euh, ci diwaanu Medina Baye itam sax boo xoolee itam jamono bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee alaaj Fall Demel ñu tàggoo ak mm. benn boo xamante ne euh, mbir mu doy waar ñu ñëw Thiès nga cees benn borom jakarta bu nga xamante ne dafa doon sàcc téléphone jàmbur Fall. waaw oto bi topp ko. waaw benn oto dàqati ko ba ndeysaan ñu ñoom ñëpp nag ñu ñu ñu defandoo soog xam naa sax dama la si ñamal tuuti. ñu waaw papay xale bi nga xamante ni moom moo lay soog doon yor oto bi maanaam jakarta bi moom borom génn àdduna daal dinay faatu. mais après Fall dinaa la wax dara itam ci mbir mi ni mu liyee ak ki nga xamante ni moom moo génn àdduna keroog foofee ci diwaanu Mbodiène Moustapha waaw Moustapha. déglu Fall sama doomu grand frère la. Euh, am na am na am na maanaam. bi may réaliser ordonnance bi aussi ba ñëw euh, ñu joxaat ma ñetti papier benn bi euh, rajo la benn bi analyse benn bi comment ça s'appelle encore sax j'ai oublié loolu très bien waaw loolu yëpp écho bi j'ai rajo et analyse bi douze mille bi quatorze mille francs waaw loolu daal bi ma ko defee ba pare après euh, le médecin bi ma fa njëkk a gis muy médecin Guèye après rajo bi bi ma ko gisee ma ñëw laaj ko présenté wu ne may papa xale bi ci li ma ne ah sérieusement yow ko góor nga amuñu nëbboo moom dafa am euh, fracture crânienne ma ne ko ah bon mu ne waa dafa am fracture crânienne quoi entre nous. bu ma loolu nag ah ma ne ko léegi kon nu ñuy def mu ne ma forcément donc dans ce cas foog ñu xaar médecin uro bi ñun fi ñu toll dañ koy immobiliser rek médecin uro bi laay déglu suñu yéema moo ñuy jox ay coordonnées ñu ñuy a def man da daa ma ne ko d'accord par la même occasion am sama benn xarit boo xam ne jabaram ci hôpital bi liggéey ko et secrétaire la kooku moo woo beneen euh, médecin euh, médecin c'est ça ça saa ne ko man damaa woowoon mais damay ndogu rek su ma ndogoo léegi naa fa ñëw kooku moo tax ma toog à l'hôpital ñu xaar ba mu ñëw ba mu ñëwee mu ne ma moom moo sax affaire bu ñuy doog egg si mooy recevoir mu ne ma vous même euh, blessé bële ki yoroon euh, ki yoroon jakarta bi yow sax laa demandé nga laajal ma ko mu tudd yaa laaj noo jox ma ko man ah bon man ah, waaw ma ko je ma si mu ne ma mais pourtant amul problème ay problème égratignure la ma ne ko non. pas égratiture ne am parce que médecin Guèye nee na ma daa am Fatou Kañar mun maa bon ma ne ko woy loolu la ma wax mun ma kon timales le temps ma dem gis ji le médecin la Guèye bu mu demee gisi Guèye mu ne ma effectivement loolu am ma ne ko kon daa tenir mu ne ma foog le médecin Iwo ah ñu toog foofu léegi nag comme yàlla dafa dogal tamit ma am doom joo xam ne sama doomu grand frère la euh, am na am na am na maanaam yenn grade yi ci gendarmerie euh, après tapé aussi directement ci le médecin chef de Thiès médecin chef boobu de Thiès nag maintenant moom moo ñu liggéentil euh, pour ñu am place au niveau de l'hôpital régional euh, l'hôpital principal de Dakar ou bien par exemple HMO yàlla dogal nag place bu mujj sotti ci hôpital principal. mais sa doom bi entrepreneur moom. bi nga gisee ci yan anam nga nga nga ko gisee est ce que waxtaan ngeen wala am na lu ko anam yu doy waa man ba fii may wax yow nii tey jii waxul ma wax sérieusement waaw boobu ba léegi daal man waxul ma wax am na benn xaritam bu mu àndoon nag nee na ma wax nag moom bi may egsee hôpital laaj ko bi ma ñëwee dafa ne ma mu ngi maa ngi muy def ci booy bi Lamine Lamine paa bi la ma wax ko non fii mu ngi nelaw bàyyi ko mu nelaw mais ñoom mais ñoom ci la leen yéegoon ñoom ci oto la yéegoon wala wala wala ci amutu jakarta insisté naa pour bu ñu ma fen nañ ma wax dëgg le conducteur ak le chef de bord le chef de bord pratiquement man mi maa ko maa ko incorporé dans ma woo ñu waxtaan mu ne ma papa li ma lay wax moo am parce que boobu su ma waxoon benn version au contraire day mel ni que laay protéger mais réellement ñun duñoo suivre action bi action bi dafa am suñu bët boom jakataa bi dafa gis dañoo gis boom jakataa bi mu côtoyé taxi clando bi fekk une dame yor euh, portable di manipuler boom jakataa bi këf bu mu ko këfee nag comme ñoom dañoo gis action bi nii devant eux ñoom ñu topp ko ñoom L200 la ñu ñëwoon ñu topp boom jakataa bi ëttal ko ëttal boom jakataa bi ba finalement boom jakataa bi daanu. Ah, borom jakataa moo daanu. boom jakataa bi bu mu daanoo nag maintenant. ñoom ñu ngi éviter bañ a jaar ci kawam ci lu ñu dévier daal di dal ci miiwu hopital bi. hôpital nga naan. hôpital euh, dalal dalal dalal xel. Ah, dalal xel dalal ñoom booy jaxataamaan bi daanu moom lañ doon éviter moo tax dal ci miiwu dalal dalal xel. noonu la demee léegi nag man inquiétude bi ma doon am le chef de bord moo leeral nee na moom effectivement moom moo dindi ceinture am wàcc. wàccee sama doom bi bu mu wàcc sama doom bi nee ñu rawalee comment ça le conducteur léegi nag moom mu nekk en garde di surveiller blessé bi ba euh, ambulance ñëw jël ko. mais borom moom boobu anam moom. borom jakarta bi ak sama doom ji la ñuy indindoo à l'hôpital dëgg la ñoom ñaar ñoo ñëwandoo à l'hôpital euh, bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee hôpital moom sax borom jakarta bi la ñu njëkk a defal rajo. boobu jakartaa bi mu ñëwee man mii wax naa moom laaj naa turam mu xaadim laa tudd maa ko maa nom bi maa ko maa ko euh, maa ko wax le médecin parce que médecin moo ne ma kii la kii mu tudd ma noo xaw ma ko de. moom moo këf pochette bi. moom moo këf pochette bi moom moo këf portable ndaw si. ndaw si elle fekk na ma à l'hôpital la même chose la ma boobu jakartaa bi moo këf portable ma ne ko ndax jot nga sa portable mu ne ba léegi jotaguma ci portable bi ma ne ko ah bon mu ne ci portable bi waaw portable daal moom moom moment boobu jotagu ci mais léegi man sama doom présentement mu ngi hôpital principal parce que bu ñu defee noonu euh, le dimanche matin ci laa dem base bi mais dem base c'était pour wuti imputation. parce que maso base boobu moo ne ma woon demain matin. Euh, dafa dugg dans l'armée defagul sa deux ans août bii la war a def deux léegi moom bu mu duggee armée ba para lañ ko yóbbu euh, duñ koy génne pour ñu ñoo def si épreuve physique def épreuve physique yi normalement écrit il paraît pour le deux. Euh, Fall dégg nga lool. xam nga ndeysaan borom jakarta sax dafa mujjee génne àdduna mais xam nga itam mbir mi nu mu xaw maanaam. Euh, kiiwee moo tax ma ni xaaral ma ma waxee ko noonu mais daal mu ngoog. Mhm. mu ngoog daal doy na waar. waaw waaw waaw moom kay ëpp na tool donc mu ngi noonu ñoo ko déggandoo. kon nañu wax ci vol à la recette bi nga xam moom jamono bi ci SK jakarta yi faal. këfantu bi këfantu bi tey bu guddi jotee à partir de 23h 3 la ñuy nekk ci kaw moto. fay seen lumière kenn du leen gis. à partir de jot. fépp ci biir Thiès nag. waaw fépp ci biir kees nag Fall moom mooy lool ah. ah déet Fall ñu ngi ci huit heures nga naan vingt deux heures. waaw ah, lu ma ci xam. ah wala tiit damaa tiit fi ne. da ngaa kon yàlla baax na Fall. Fall kon mu ngoog daal xam naa ne mbir mi daal nañ ko topp incha allah rabbi nañ ko ko topp nañ ko topp kon nag mbokk yi ñu ñaanal leen euh, kenn dalum jàmm mhm. képp koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu rek ñu ñaanal euh, kenn lu jàmm ak salaam talaata tey bi daal nekk talaata bu neex borom mu mhm. neex mhm. donc moom leen leen di ñaanal yéen ñëpp kon rek ñu bàyyi la euh, Fall bëgg loolu xanaa rek di souhaiter joyeux anniversaire Mbuub waaw Sam Mbuub ñu ngi koy souhaité Sam Mbuub jàngkat waaw moom nag daf ma lu ma waxee naa ma abu aan yow waaye li ngay wax gaay waaye daal Sam ku baax la ndeysaan mën a tagg yonent bi lool nga xam te ne xale yu bëree bëri ñu mel ne ñun mm-hmm. fu ñu dem ci tànt barkeelu ci ay eeram yàlla teral kon moom fa saal yàlla fi yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko yàlla sax waaw yàlla dafa dogal ay mm. bëtam muuru waay fu mu dem mu man ci loo xamante ni am na ñun ñu ñu am ñu gis te wallaay fu mu dem daal macha allah wallaay daal mbir yàlla la. Mhm. mbirum saam mi mbirum kéemaan la. kon fan la mel saam yàlla ko yàlla sàmm. na ko yàlla sàmm mbirum saam. kon ba suba incha allah rabbi a baax. mbokkee mhm. xarit yi dëkkandoo euh, bu a baax di leen kontaane ba suba ak jàmm yàlla na ko yàlla def ci réew mas comme gaal xewel yu bari saawan baawaan yàlla def seeni poos dara def suñuy poos dara ba lu ñu làmb daj jërë ngeen jëf